sant bu baax mboolem xeeti daayira yi mboolem xeeti daayira yi nga xam ne teew nañ ci biir dëkk bi ci biir dëkk bi daayira bu ci mel ne daayira bu ci mel ni waa kër Serigne Cheikh Coro yi waa kër Serigne Cheikh Coro Mor ak Malick jiite ko. ca Serigne Mor ak Serigne Malick jiite ko. am nañoo bu baax a baax. Serigne bi na ànd nañoo moom bu baax a baax ci liggéey bi. ci fànn yëpp. ci fànn yëpp. ci jëf ja. ca jëf ja. ak ak ak fànn yëpp. rek. Eh, lu ci lu ci mel ne it. lu ci mel ni. waaw daayira Cheikh Béthio bi fi dugg léegi. daayira Cheikh Béthio Thioune bi fi dugg léegi. andi fi seen i teraanga. andi te yàgg ko fee andi lool. ñoom itam. li leen seen jëwriñ sant. li leen seen jëwriñ sant. nee na leen. nee na leen. képp ku lay woo ci sant. képp ku lay woo ci cant. waxu nga ñëw fa ak loxoy kese. la nga ñëw fa ak loxoy kese. daf laa jëfloo. daf laa jëfloo. kon nag loola. bind boobu. bind boobu. mel na ni ñoom. mel na ni ah, xam nañ ko bu baax. xam nañ ko te mokkal nañ ko. ñoom ñoom itam. baax. sëriñ bi mu ne mi ngi leen di sant bu baax seen taxawaay. sant waa kër Cheikh di sant waa kër Cheikh Modou Kara Nooré nii. ñoom ñi nga xam ne. Euh, ànd nañoo moom. ci lépp ci lépp. it ñu yàgg te it ñu yàgg lool. ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di sant bu baax. ci ci seen taxawaay. ci seen ci njiital jëwriñ ji. maam Thierno Sakho. Ndiaye. ak Yiri Ndiaye. Baye Yiri Ndiaye. ak mboolem ñi ñu àndal ñëpp. mu ngi sant bu baax it. mu ngi sant bu baax. ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci wàllu liggéey bi. ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci wàllu liggéey bi. ca waañ wa. ca waañ wa. ci njiital soxna Marème Ba sàll muy daayira soxna jaariyatullaahi maam Mariama Bousso bu Touba Sangal Kam. togg yi. tubaarkàlla. jaar na jaar na yoon bu baax. xam naa kenn jàmbatagula te mbàkk sax kenn du la jàmbat ndax ñi sant sekk yaakaar naa fër nañ kon alhamdulilahi rabbil alamin waaw am na luñ ci xam bu baax mbàkke yaakaar naa ne moom kawe na lool ku ci mel ni soxna Yaasin Jóob moom it fànn dañ ko joxoon moom it wax dëgg yàlla mbàkke loola maa la koy seedeel matale na ko bu baax a baax a baax a baax a baax a baax kon moom it ñu ngi koy sant bu baax waañ dafa metti waañ dafa metti lool rawatina tàngooru taal bi rawatina tàngooru taal bi ak ya ci aju yëpp rek waaye ñu ngi leen di sant bu baax la ñuy def lépp ngërëmal Sëñ Tuubaa rek lañ ciy sàkku yàlla nañ ci daje ngërëmal Sëñ Tuubaa nee na bu loolu jàllee nekkoon ci organisation ñuy sant it ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci organisation bi. ci njiitalu Latir Ndour. ci njiitalu Latir taxawaayam rafet lool taxawaayam lool. muy jàmbaar lool muy organisation bi nga xam ne. organisation bi nga xam ne. moom lañ ko dénkoon. jaar na yoon jaar na yoon. rafet na lool rafet na lool. yal na ko yàlla dëgëral. te jàppale ko. yaakaar ji ñu amoon. yaakaar ji ñu amoon. ba dénk ko ko. yaakaar ja. ak ya yaakaar ja. dara tasu ci dara tasu ci. yaakaar naa ne ku gis baas bi. yaakaar naa ne ku gis baas bi. xam ne baas bii ñu baas. xam ne baas ñu baas. mës mës am. mës fi am. ba muy sàngalkam. nii. ni ñu baase nii. mësu fi am. mësu ni mu mu ni mu te ni mu teelee. ñu baas ko ci ci ñu baas ko ci ay waxtu. waaw baasuñu ko sax ci daan nañ baas baas bi ñetti fan. ña ñetti fan daan nañ ko baas ko ci ay waxtu. ren ñu baas ko ci ay waxtu. loolu Serigne Touba rek ko ko ko sëriñ Tuubaa yàlla nañu sëriñ Tuubaa gën a dimbale. ngi santaat bu it. mu ne it bu ko defee mi ngi santaat bu baax. jëwriñ Fallou Fall. jëwriñ sëriñ Fallou Fall. moom itam jàmbaar la. jàmbaar la lool. ci liggéey bi. noppaluwut. xelam xelam. xalaatam lépp. lii rek. mooy la 11 mai. kon li leen teewoon a nelaw nag. kon li leen teewoon a nelaw nag yéen. agsi na agsi na. ki ñu koy defal. ki ñu koy defal. muy Serigne Saliou. muy Serigne Saliou. baaxal baaxal na lépp. ñoo ko gisandoo. kon nag ñun ñëpp ñoo ko gisandoo. Ah. di sant bu baax di sant bu baax. Ibrahima Fall. Ibrahima eh, eh, ak ñi àndal. ak ñi ma àndaloon ñëpp. Eh, ku mel ne Souare. ku mel ni Soa Aline Souare. ku mel ni Idrissa Wassa. ku mel ni Serigne Idrissa Wassa. xam ñoom daanaka. ñoom ci daara ji lañ. ñoom nga xam ne ñoom waxuma sax waaye daaw bañ cantee ba noppi ba fii ñu toog di wax ak yéen ñoom noppalu wuñ guddi ak bëccëg ñu ngi ci daara ji. waaw ah, ñu leen di sant bu baax. sëriñ bi mu ne mi ngi leen di sant bu baax a baax a baax. di sant mboolem ku ne ci dëkk bi. di sant mbooleem koo xam ne rek yaa ngi ci biir dëkk bi. rawatina nag maanaam ku ci nga xam ne ñoo yor sonorisation yi. mu ne ñi nga xam ne ñoo yor sonorisation yi. Taala Saw. muy Taala Saw. dëgg yàlla sonorisation bi. sonorisation bii. alhamdulilah alhamdulilah rabbil alamin sant nañ la bu baax sant nañ la yow Serigne Talla bu baax a baax. Euh, li ñu doon seen Sidi Saw waaw taxawaay bi. taxawaay bi. Euh, ak sono bi. ak sono bi. Euh, yaakaar bii ñu am nii. bii ñu am nii. wuute naag yéen daan am wuute naag yéen daan am. yooyu sax boo daan jàng mbàkke day xaral. waaye bii moom tuwaat kan ah, waaw loolu am sax kay mbàkke. kon sëriñ bi mu ne mi ngi sant bu baax. installé sax lamp yi. ñi nga xam ne ñoo doon installé lamp yi. Cheikh Fall. muy Serigne Cheikh Fall. yabaloon Serif. yabaloon Serif. yàlla mu def ko ci xol bu rafet. mu def ko ci xol bu rafet. xol bu tàlli. bu tàlli. ñu koy sant bu baax ñu koy sant bu baax a baax. di ko ñaanal di ko ñaanal. di ñaanal soxna Awa Guèye. di ñaanal soxna Ndeye Awa Guèye. mi nga xam ne yàlla suñ borom. mi nga xam ne yàlla suñu borom. daa dogal mu umra ji. daa dogal mu nekk mu dem umra. mu dem ci jàmm. mu dem ci jàmm. ci jàmm. ñëw ci jàmm. fekk ñu ñu ci jàmm. lam ñaan foofu lépp. yàlla nangul yàlla na ko yàlla nangul. ginnaaw bu loolu jàllee it. sëriñ bi mu ne ginnaaw bu loolu jàllee. sant gan ñi. ñu sant gan ñi. ndax euh, gan ñi. ndax gan ñi kat. ah yéen sàngal sàngal kam lañ gane si. sàngal kam lañ gane si. Euh, comme ni ñu ko waxee ci ci cérémonie bi rek. comme ni ñu ko waxee ci cérémonie officielle bi rek. nit moom mënta ñàkk ba nit. nit moom mënta ñàkk ba ñu tudd nit. ndax euh, ay sànq lañ sax. ndax sànq sax. bu ñuy dox. jiitu dana am bu jiitu. kon ku ñëw fii. kon rek. faaw nga ne faaw nga ne. faaw nga ne. Euh, gani sëñ Mouhamed yi gani sëñ Mouhamed yi. gan ñi gani waa Sàngal Kam. waaye gan ñi moom gani waa Sàngal Kam lañ. mu bëggoon a lim nag. sëriñ bi mu ne dafa bëggoon a lim. waaye bu ma bëggoon a lim. waaye su bëggoon a lim. ñi nga xam ne ñoo bàyyi ko ci ay barab. ñi nga xam ne ñoo bàyyi ko ci ay barab. ñëw fii. ñëw fii. jataay bi dana gën a yàgg. boo moytuwul bët set dana jot te duñ jeex. waaye fii mu toog nii toog nii rek. sëñ Mor Seck mii. sëñ Baye Mor Seck mii. dëkk saa tool Risatol. Euh, ne fii Ndakaaru. nekk fii Ndakaaru université Cheikh Anta Diop. Euh, am yitte lool ci bis bi. am yitte lool ci bis bi. nga xam ne moom démb la yëg bis bi. démb la yëg bis bi. ñëw ci ñëw ci. Euh, Cheikh Ibra Diop mii bàyyi ko Kayar. Cheikh Ibra Diop mii bàyyi ko Kayar. di jànkatu xasida. baaxoo ànd ak ñun bis bi baaxoo ànd ci bis bi. ba tey jii. ba tey jii. mu ànd ak ñun bis bi mu ànd ak ñun di jànkatu xasida am fi ay soppe am fi ay xarit. nekk boroom taxawaay bu rafet. nekk borom taxawaay bu rafet. am taxawaay ci kuréel gi. am taxawaay ci kuréel gi mu jiite muy xidmatul xaddim. am ci taxawaay bu baax mu am ci taxawaay bu baax moom sa Ibra Diop mi. ñu ngi koy ñaanal. ñu ngi koy ñaanal. sama boroom defal ko xéewal. sama defal ko xéewal. Uh, ak ak ndam. ak ndam ci xasida yi mu jublu. ku ci mel ni Masiga Seen. ku ci mel ni sëñ Masiga Seen mii. mbuur bàyyi ko mbuur ah, moom itam moom itam eh, dëgg yàlla di suñu taalibe di taalibe ci kër gi di suñu xarit di xaritam mm, dëgg yàlla mën naa wax ne nee na sëriñ bi mu ne mën naa wax ne ah, ba mu fi ba ci kër gi la bokk bu baax ci kër gi la bokk bu baax. te ci la bokk ci ci la bokk it. ndax njabootam ngi ci daara ndax njabootam ngi ci biir daara ji. te mës sa mës sa saa su ne. saa su ne. mi ngi nemmeeku daara daara ji. bëgg suñu jëmm ji ci jëm bëgg jëmmam ji te jëmmi Serigne Touba ji tax. ñoo ngi koy ñaanal yàlla. nee na Serigne Massiga Serigne mu ne mi ngi lay ñaanal yàlla. yàlla yàggal sa taxawaay. sa borom yàggal sa taxawaay. yàlla wërsëgal la. te musal la te musal la. di bu baax. mu ne mi ngi sant bu baax. soxna Ndioba Dieng. soxna Ndioba Dieng. moom mi nga xam ne. moom mi xam ne. Euh, ñëpp xam nañ ko. ñëpp xam nañ ko. ci taxawaayam bu rafet. ci jëmmam ji. ci ànd ak moom. ci ànd ak moom. ci fuñ mën a nekk. ci fuñ mën a nekk. muy fii. muy fii ak Touba. di sant bu baax. mu ne mi ngi sant bu baax. soxna Fatou Toob mi nga xam ne. moo fi taxaw taxawaayu Cheikh Mamadou Fadou Fall Serigne Fadilou Fall moom Cheikh Mamadou Aminta Fall. Euh, ndax moom. ndax moom. mën naa taxaw taxawaayu kër Serigne Modou Aminta gépp. mën naa taxaw taxawaayu kër Serigne Modou Aminta Fall gépp. ndax soxna moom. ndax soxna moom. lenn la cib sëriñ. lenn la cib sëriñ. bu bu fekkee nag. bu fekkee nag. sëñ Fallou sëñ moo sëñ sëñ sëñ sëñ Fallou Fall ay jëwrinam. sëriñ Fallou Fall mooy jëwrinam. ah ba mu njaboot fa. mu njaboot fa. mën naa teew teewaayu. nee na mën naa teew teewaayu mboolem waa kër sëñ Modou Aminta gépp. te ñoom la teewal it la teewal euh, mboolem waa yi. mboolem waa Touba yi. ku mel ni soxna Xadi Fall. ku mel ni soxna Xadi Fall. ak ñi ma àndal ñëpp. mu ngi sant bu baax soxna Ndeye Diagne. sëñ bi nee na mi ngi sant bu baax soxna Ndeye Diagne bu Tëngéej. ñu ànd ak soxna Ndeye fay ànd ak soxna Ndeye Faye ak soxna Mbayte Ndiaye. ñu nekk ay jàmbaar lool. ñu nekk ay jàmbaar lool. ci waaru sëñ bi ci waaru sëriñ bi. ndax li muy nekk nekk sama mbokk. nee ndax li mu nekk nekk mbokkam. li ma gën a neex ci moom. li ko gën a neex ci soxna Ndeye Diagne. mooy ak taalube. mooy ak taalube. te da koo caaxaanewut. royu royukaay la. nee soxna Ndeye Diagne day royukaay la bu wér. tey nitu àjjana la waaw di sant bu baax sëriñ bi mu ne mi ngi sant bu baax mbooleem ñi mu àndal mbooleem ñi mu àndal kuréelu xidmatul xadim gi nga xam ne kuréelu xidmatul xadim gi nga xam ne ñoo booboo tëngéej ñoo bàyyeekoo tëngéej di seen jëwrin te yàlla doxal ñun ñii di wax ak yéen doon seen jëwrin doon seen taxawaay joor seen taxawaay seen seen taxawaay fii ñoom waa xidma ràññeeku la lool waaye mbàkke loolu bala ngaa jàll nga dimbale ma rek ma sànni la ci ñaari baat mooy waa xidmatul xaddim ñoom lu ñu la defal doyut waa xidmatul xaddim buñ fi doon nekk fii ba àdduna di tukki it mënuñu laa fay ndax ñun ñii di seen jëw jëwriñ ànd ak ñoom di liggéeyal sëriñ Touba fi nga ñu teg ak li nga ñu defal ak li ñu ànd ak yow ngir jëmbi Serigne Touba ñoom lu ñuy def ci yow rek doyut buñ sañoon lu ñu def ci bis bi ñoom ñoo koy def suñu mi ngi fii suñu Idrissa moom it Idrissa ngi fi ak Daouda ñoom barki dem bu laa leen wax ne leen nañ ñëw Sàngalkam fii ak tekki wuñ baas yi ba delloo ji ko ba delloo bagage yi bagage yi jeex ñoom bu fi kenn jóge ci ñoom ñooñu kon lu luñ la defal rek mbàkki doyu waa Xidmatul Xaadim ñoom ñoo lay sant de yow doo leen sant ñoom ñoo lay sant seng seng mi ngi nii ànd ak soxna may ñi ngi nii toog ñoom ñëpp ñoom ñoo lay sant waaye yow amu yow moom waroo leen sant ndax li nga leen defal ngir jëmbi Sëriñ Tuubaa ñoom xam nañ ko bu wér a wér a ñoom ñoo lay sant de ko defee. waaw sëriñ bi mu ne bu ko defee. sant leen bu baax. waaw ñu sant leen bu baax. sant sécurité bi. sant sécurité bi. ci njiital Babel. ci njiital Babel. nga xam ne. moom mi nga xam ne. sama taalibe. moom ab taalibe ma. sama xarit. di xaritam. koy ñaanal bu baax. sëriñ bi mu ne Babel mi ngi leen di ñaanal bu baax. sama borom doon leen a dimbale. ba liggéey bii ngeen di yëngu. ngeen am ci tawféex. ngeen am ci tawféex. te am ci lu kawe seen njort. ndax moom Baabel moomu. ndax moom Baabel. royukaay la royukaay la. ci dalam ci dalam. ci niteem ci niteem. ci ràññeem ci ràññeem. mu ngi sant bu baax. sëriñ bi mu ne mi ngi lay sant bu baax. liggéey bii liggéey bii. ba mu dalee ba mu ba mu dalee ba tey. bañ tàmbalee ba léegi. saa su ne saa ah, ci bégloo rek la ñuy gis. lu leen ci bégloo rek lay lay moom lay gis. te mu yor te wàll gi nga xam ne moom nga yor yow Baabel. sëriñ bi mu ne mosu cee am lu ko naqari. nee na mi ngi la ciy sant bu baax. yaa ak yaa ngi nga àndal ñëpp. Mm, waaye di sant bu baax itam. waaye sëriñ bi mu ne mi ngi sant bu baax. sëriñ Cheikh Diop Mbaye alaaji Cheikh Diop. moom mi nga xam ne. Eh, bis bii. bis bii. ku ci am yéene la. ku ci am yéene la. te itam. te itam. sàngalkam gii. sàngalkam gii. ku fi ku fi bëri ay soppe la. te itam. te itam. Cheikh Ibra Diop mii. Cheikh Ibra seere ci moom. seere ci moom. biñ toogee léegi. biñ toogee léegi. mu ne ma Cheikh dafa mu ne ko man day El Hadj Cheikh Diop daf maa jaaxal. sëriñ bi mu ne sëriñ Ibra lu la jaaxale. mu ne ku baax. mu ne ko day ku baax. mu ne ko man de xam naa ne moom ko oyof la sëriñ bi moom mi daal di ko dellu man de ne ko xam naa ne ku oyof la. Ah, te eh, yaakaar naa ne. sëriñ bi mu ne te yaakaar na ne. ni mu ko waxee. ni mu ko waxee. jataay bariwul seenu jataay yi bariwul suñu déggante seenu déggante moo ëpp seeni jataay waaye waaye nag xam naa ne sëriñ bi mu ne xam na ne ah, ku jafe la ci jàngkatu xasaay ku jafe la ku jafe nga ci jàngkati xasida yi ndax ndax day nee na ndax day eh, lii nii nee na lii yombal ko yombal nga ko lool bu baax a baax bu baax am na jàngkat yoo xam ne nee na am na jàngkat yoo xam ne su doon ñooma su doon ñooma dañ naan la boo ma awaasul nangam. dañ la boo ma awaasul nangam. du ma ñëw du ma ñëw. soo mënee def. soo mënee def. soo mënut baax soo waaye moom li muy yëngatu nii. waaye nee na sëriñ bi li muy yëngatu moom si alaaj Seex. wóor na ko ne. wóor na ko ne. ngërëmal sëñ Tuubaa dong nga ciy sàmm yow. moom la ciy sàkk. moom nga ciy sàkk. ndax jànkatu xasida. ndax jànkatu xasida kat. yàlla teral na leen. yàlla teral na leen. yonent bi sallallahu alayhi wasallam teral bi sallallahu alayhi teral na leen. Serigne Touba teral na leen Serigne Touba teral na leen. teraanga jooju. teraanga jooju nag. moo tax fu ñu dem. moo tax fu ñu dem. ñu di leen tàllal. ñu di leen tàllal. ñuy joxe. ñuy joxe. te te dañuy jokkoo mu wax ma lu lu lu daw yaram. nee na Serigne mu ne dafa jokkoo moom wax ko lu daw yaram. loola nag. nee na loola nag. sama digganteeg mooma. digganteem Alaaji Seex la ak Serigne. te loola. te loola. mu jàng ci lu bari. ne xam ne kon. nee na sëriñ bi ne nga xam ne kon. kuy jàng kuy jàng ku ne. kuy jàng ku ne. di ànd ak di ànd ak ay nit. di ànd ak ay nit. loolu muy bàyyi xel. loolu muy bàyyi xel. loolu loo war a sàmm la. loolu loo war a sàmm la. loo war a bàyyi xel la. loo war a bàyyi xel la. waaye na xam ne daal. waaye sëriñ bi mu ne yow Alaaji Seex nga xam ne. Eh, dëkk bii. dëkk bii. sa dëkk sa dëkk la. Eh, te yaakaar naa tund wi. tund wi. yaa ngi fiy jàng. yaa ngi fiy jàng. waaye sàngalkam. waaye sàngalkam moom. cant Serigne Saliou gii nga ñuy defal Serigne Saliou nga fi njëkk a jàng te yaakaar naa ne te yaakaar naa ne bu ëllëgatee bu ëllëgatee onze mai moom onze mai moom dañ koy dugal da nga koy da nga koy jël dugal ko sa programme yow alaaj Cheikh Diop fu la mën a fekk it sa bis la rek ak 18 avril nekk ak 18 avril Kayar ak loolu loolu loolu loolu loolu nga bàyyi ko xel bu baax mu ne loolu nga ñu wax. ci murid yi ci murid yi. loolu Serigne Touba wax na ko. loolu Serigne Touba wax na ko. ndax Serigne Touba bu waxee ne. ndax Serigne Touba kat bu waxee ne. wax di awaahijil la siina daamu. wax di awaahijil la siina daamu. daamu la wax. daamu la wax. kon yow li am li am solo. kon yow am solo. yow bi yow murid bi. ngay liggéeyal sëñ bi rek. ngay liggéeyal sëñ bi ndax boo ko liggéeyalee. ndax boo ko liggéeyalee kat. say aajo. say aajo. day sax ci di faju. day di faju. kon nañ xëntewoo rek. ñun ñëpp ñu maase xëntewoo di liggéeyal sëriñ bi rek. te xam ne nag. te xam ne nag. man Mouhamed Mbacke de. nee na moom Mouhamed Mbacke. fii ci àddina. fii ci àdduna gii ñu ne. ak fañ jëm ci alaaxira. ak yowmal xiyaam ñu jëm. gisuma fi lu gën liggéeyal sëriñ Touba. gisu lu gën liggéeyal sëriñ Touba. dafay amul sax. xaw ko it. xamu ko it. déggu ma ko it. déggu ko fenn it. kon nag. kon nag. kon nañu liggéeyal sëriñ Touba. liggéeyal Serigne Touba mooy lan. te xam ne te xam nag liggéeyal Serigne Touba mooy lan. liggéeyal Serigne Touba. ndax liggéeyal Serigne Touba kat. du ci aw làmmiñ rek du ci aw làmmiñ de. am na ay yoon. am na ay yoon. ba ca jiitu. ba ca jiitu. dama saa su ne. waxtu wu ne da koy wax. man taalibe yi ma àndal. nee moom taalibe yi ma àndal. li ma gënal ci ñoom. li ko gënal ci ñoom. ci seen addiya. ci seen addiya. mooy njub gi. jub la gën a soxla ci ñoom. gën a soxla ci ñoom. ci xaalis. ndax loo ma mën a jox. ne sëriñ bi nee loo ko mën a jox. te may am ay ay intervention. te may am ay intervention yu jógee fu ne. ñu may xeeb ak a yab. ñu koy xeeb ak a yab. la may jox jëralu ko. la nga koy jox jaralu ko ko kat. sama der bi dama ko bëgg lool. sëriñ bi mu ne bi daf ko bëgg lool. bëgguma lu ko yàq. te bëggul lu ko yàq. kon nag addiyee njub googu. kon addiyee njub googu. moo gën a tax. moo gën a tax. mu gën a taamu tànk yi. mu gën a taamu ànd ak tu tànk yi. ndax ñoom kat. ku ci suñ borom dimbali. ku suñ borom dimbali. nga tegu ci aw yoon nga tegu ci aw yoon. dana sax ci yow. loolu dana sax ci yow. Euh, wàllu googu it. sëñ bi mu ne wàllu googu it. fii muy yeewoo. fii muy yeewoo ci Sangalkam. mbokki taalibe yi. mbokki taalibe yi. ma gis ñu ngi koy sàmmal. ko koy sàmmal bu baax. ndax kat. sëriñ bi mu ne ndax kat. bi mu fi nekkee nekkal fi sëriñ Tuubaa. fi nekkee nekkal fi sëriñ nekkal fi lislaam nekkal fi lislaam suñ ko doon woo suñ ko doon woo ci yu mel noonu ci yu mel noonu dana ma sonal lool dana ko sonal lool loolu sama sama benn taalibe bu waajur boo xam ne nee na benn taalibe bu waajuram boo xam ne euh, xeeti takk der yooyu la bokk xeeti takk der yi ci la bokk moo ma ci ma a wax dara moo ko mas a wax dara maa mos a wax ne ma. def koo mos a wax ne ko. yow de Serigne Abdou Aziz ku mënoon ku mënoon intervention la. yow de Serigne Abdou Aziz ku mënoon intervention la. intervention bu ne dimbale na ko fi. intervention bu ne dimbale na ko ginnaaw mën naa wax ne ginnaaw bi sëñ Abdou Assis euh, ginnaaw sëñ Abdou Assis. ginnaaw sëñ Abdou Assis. am na ci doomam joo xam ne. am na ci doomam joo xam ne. daanaka ku ñëpp xam la. ku ñëpp xam la. waaye kilifa kilifa kilifa am na loo xam ne doo doo doo ko wax ci rajo. waaye nag am na loo xam ne ci kilifa doo ko wax ci rajo. waaye kooka mën naa wax ne. waaye kooka moom mën naa wax ne. intervention. intervention. fii ci ci réewum Sénégal gii. ci réewum Sénégal gii. kenn dàq ko fi. kenn dàq ko fi. ndax ay kilifa yu mag. ndax ay kilifa yu mag. dañuy am ay jafe-jafe. dañuy am ay jafe-jafe. mu di leen ci tinu. mu di leen ci tinu. te loolu ci sama baay ci sama baay la ko jëlee woon. waaye nag loola ñu ngi ko jëlee woon ci Serigne Abdoul Aziz moom Serigne Afi. waaye loola bu mu amee itam. Serigne mu ne loola bu mu amee itam. kooka daf maa yee. ko daf koo yee. ne ma ne ko. sëñ bi sëñ bi. ma sañoon day. bu ma sañoon day. xeeti intervention. xeeti intervention. bu jëm ci njubadi. bu jëm ci njubadi. dugal sa kàddu. bu ci dugal sa kàddu. ma ne ko lu waral loolu. Mm, sëriñ bi mu ne ko waa lu waral loolu. Ah, ndax ma ne ko ndax. mu ne ko ndax. boo amee taalibe. boo amee taalibe. dana am ñu jub. dana am ñu jub. am ñu jubadi. ku jubadi. léegi nag ku jubadi. bu nekkee daa nekk ci ay jafe-jafe. bu nekkee daa nekk ci ay jafe-jafe. nga seetaan ko. nga seetaan ko. moom loolu dana metti di. mu ne ko waaw kon loolu dana metti di. ma li ma lay ciy dénk daal. mu ne ko li ma sëriñ bi. mooy. mooy. koo xam ne am na yenn yoo xam ne mën naa ne. koo xam ne am na yenn yoo xam ne mën naa ne. waaye nag. waaye nag. lu mel ne dorog. lu mel ni dorog. lu mel ni rey nit. lu mel ni rey nit. lu mel noonu. lu mel noonu. bu ci def benn intervention. bu ci def benn intervention. mu ne ko lu tax loolu. mu ne ko lu tax loolu. mu ne ma saa yoo ko defee. mu ne mu ne sëriñ bi saa yoo ko defee rek. yow mi ko def. yow mi ko def. classé nañ la. classé nañ la. fépp foo demati. fépp foo demati. dañuy jàpp ne yow yaay nday nday nga yow. yow dañuy jàpp ne yow nday nga yow nday maanaam nday nga. ak kilifa goo mën a doon ak kilifa goo mën a doon nag. ñu lay xeeb. ñu lay xeeb. ak di la tuutal. kon loola nag. kon loola nag. moo tax muy sàkku. moo tax muy sàkku. yu jëm ci wàllu yu mel noonu. yu jëm ci wàllu yu mel noonu. képp koo xam ne sama xarit nga. képp koo xam ne xaritam nga. wala soppe nga. wala soppe nga. wala jullit wala jullit nga. ak noo mën a doon. ak foo koo mën a doon ak mën a doon. ngay moytu yooyu. ngay moytu baax. waaw cigarette sax. cigarette sax. boo ko mënee baax. soo ko mënee baax. ba ko mooy li gën. mooy li gën. sàkkantumaan nag yaa ca des. sàkkantu ko sàkkantumaan nag yaa ca des. ndax yooyu daa amul benn njariñ. ndax yooyu kat amul njariñ nañ koy moytu bu baax. te xam ne liggéeyal Serigne Touba. te xam ne liggéeyal Serigne Touba. mooy fexe ba. mooy fexe ba. nga defar sa jëmm. defar sa jëmm. ba ku la gis. ba ba ku la gis. bëgg mel na yow bëgg a mel na yow. loolu rek mooy liggéeyal Serigne. loolu rek mooy liggéeyal Serigne Touba. fexe ba it. fexe ba it. li la yàlla booleel. li la yàlla booleel. bu dee sa njaboot la. bu dee sa njaboot la. nga liggéeyal ci ñoom Serigne Touba. nga liggéeyal ci ñoom Serigne Touba. fexe ba bu ñu xiif. bu ñu mar bu ñu mar. bu ñu rafle. loo am loo am. ci loo war a yóbbul sëriñ bi nga jël yóbbul sëriñ bi loolu mooy liggéeyal sëriñ bi xam naa kàddu yi kàddu sëriñ bi mu ne xam na ne kàddu yi gudd na gudd na waaye bëggoon a waaye su bëggoon lim ak a sant ak a sant fi laay fanaan fi nga fi lay fanaan fi lay fi fi ngay yendu dina naaj dina naaj lool waaye waa Kaolack yi nga xam ne waaye waa Kaolack na ñi nga xam ne day ay njabootu Serigne Abdoul Aziz ñoom xam ne njabootu Serigne Abdoul lañu te sëñ sëñ Kàbbu ji jiit sëñ Kàbbu Jóob jiite leen sëriñ Kàbbu Jóob jiite leen ñu jiital ñoom Cerno ñu ñu jiital ñoom Cerno ñu ñëw gis nañ seen taxawaay ñu gis nañ seen taxawaay baax waa Saalum waa Saalum ci njiital sëñ Mataar Ndoog ci njiital sëñ Mataar Ndoog ñu ngi koy sant bu baax ñu ngi koy sant bu baax euh, waa waa Njaareem waa Njaareem ci njiital sëñ Basiiru Jaañ ci njiital sëñ Basiiru Jaañ Abdou Aziz réew Abdou Aziz Jaañ nekk bitim réew ñoom gis nañ seen taxawaay bu baax mboolem ñi nga xam ne ak mboolem ñi nga xam ne rek la bokkal xidmatul xadim moom la bokkal xidmatul xadim sëñ mbaay mii teew sëñ mbaay mii teew moo teewal waa kuréel gi yëpp moo teewal waa kuréel gi xidmatul xadim gi yëpp kon nañ xam ne daal sëñ bi mu ne ñu xam ne kuñ wax ak kuñ wax ak kuñ waxut kuñ gis ak kuñ gisul sant nañ leen gërëm nañ leen may ñaan Cheikh Diop nag sëriñ bi mu ne yow alaaji Cheikh mi ngi lay ñaan bu defee comme jàng yi nga xam ne siiw na lool mu ne kon jàng yi nga xam ne siiw na lool mooy suñ nga xam ne day dem muy suñ bàmba ji nga xam ne moom faaw day dem rek ah, bu ko defee bàmba ji dem bu ko defee na Mbàkke am Jóob na bàmba ji dem bu ko defee waaw nee na bu ko defee bu ñu sañoon bu ñu sañoon nekk yow nekk ak yow ba lu ëpp onze heures midi ba lu ëpp onze heures midi waaye onze mai bii tey waaye la onze mai bii tey dañ koy màggal dañ koy màggal di ko màggalal Serigne Saliou di ko sante Serigne Saliou Euh, ndax ndax 11 mai. ndax 11 mai. leneen moo daan xew. leneen moo daan xew. waaye ku ne xam na ne bis bi. waaye ku ne xam na ne bis bi nag. ñi ci ñëw ñi ci ñëw. fi ne am na ñoo xam ne sax xëy nañ jàngi. fi ne am na ñoo xam ne sax xëy nañ jàngi ci gone yi. am na a jàngi. ñoo xam ne léegi ñu war a duggi. am na ñoo xam ne dañoo war a xëy liggéey. am na ñoo xam ne dañoo war a xëy liggéey. ñu defal leen yërmande rek. ñu defal leen yërmande rek. boo ñu boo ñu bëggalaatee. waaw ñu a a wàccee. ñu daal jéggal nit ñi ndax liggéey daa daa mën a jéggal nit ñi ndax liggéey xeetu njàng meek ak yooyu yëpp. yërëm leen ci loolu leen ci loolu.